wax ak taysiir dafa nu jàpp ni mbir zahiran wa baatinan mbokk yi niñ ko baaxoo def di ànd ak yéen saa su ne ci suñu émission yaru ak euh, yare di si ànd ak suñu mbokk daara sëñ Maxtaar Kebe mu Cheikh Salif Mbacke ñu ngi ko nuyu baax te di ko siyaar di ko jaajëfal di siyaar tam suñu Omar Sylla mi nga xam ni ginnaaw bu émission yaru ak yaru jàllee mooy àndaat ak sëñ Maxtaar Kebe ci émission boole di ko siyaar bu baax émission bu am solo ba mbokk yi ñu ngi koy topp bu baax di siyaar itam suñu technicien suñu Moustapha Sarr di siyaar mbooleem euh, ñi nga xam ñu ngi topp waaye di demande itam si mbokk yi ñi xam ne dañuy euh, rafetu liggéey bu baax a baax ñu ngi yëg ñu ngi yëg soññe yi ak ak ñaan yi waaye di ñaan itam luñ ci rotor rek euh, yàlla def ko muy aw yiw te tasaare ñu dañ jéggal ñu itam njuumte yi ak ak rëcc-rëcc yi ndax jubluwaay bépp rek mooy ñëpp gindeeku tegu ci aw yoon waaye suñu borom nag mooy ki moom moo yor ak te itam moom moo koy wërsëgale ku ko soob yàlla nañu ko euh, wërsëgale tey jii nag ñu ñëwaat ci suñu numéro 18 sofaat ko ci fi ñu jeexale woon ci jëm ci wàllu ak maandu so suñ maxtaan ñëw ci ci tomb yu am am solo joxe si ay misaal ci yonent bi alayhi waaye joxe si saxaaba ridwanullahi alayhim waaye ñu ñëwaat na xëcc ko ba mu gën a euh, jige jël misaal ku mel ni sax Saalum Bakar radiyallahu anhu ku ko xam-xam ne borom daara la woon taxaw si taxawaay bu am solo boo xam kenn du ko sikki sàkk mhm. xam naa ginnaaw buñ joxee joxee sëñ Maxtaar mu nuyoo ba noppi dañuy ñëw rek soo directement si sax Saliou Mbacké ak maandu ci biir ay daaraam ngir que ñun ñi ko xam te dund jamono ñu xam ñuy dem maandu nan lañ ko war a mën a jële pour doxe ko ci euh, monde bu lëndëm bi nga xam ne moom la ñuy dund tam tumuranke lool waaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ Mbacké Sourang sama mbokk daara maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaare di nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp fu ñu mën a nekk ci góor ak jigéen mag ak ndaw dama leen yóbbu ak ziar bi ci direction bi di seet 3 s ka ca bopp ba di alaaji sëriñ Seck di ko nuyu baax di ko siyaare ak sëriñ Fallou ak sëñ Daam ak personnel bi ñëpp bàyyi wuñ kenn ci góor ak jigéen di nuyu it sëñ Omar Sylla suñ mbokk mi nga xam ne moom lañ war a seqal léegi incha allah rabbi émission yi seeni boole waaye di nuyu itam sëriñ Moustapha Sarr mi nga xam ne mooy technicien bu jàmbaare bi di nuyu it bokk réew mi ñëpp bàyyi wuñ kenn waaw kon si Makhtar comme nañ la ko waxee rek ni ñu defoon suñu numéro set bi jàll xam ñu doon waxtaane li jëm ci wàllu maandu rawatina yi nga xam dafay nekk ay aide di dugg si daara yi ñu di ko séddale mu war a dem ci daara yi mu nekkulu jafe lool waaye ñi ngi ko dénk itam da ci def seen tam lay waaye léeg-léeg itam am ñu leen si nuru nurulu di si doxe doxin woo xam ne wu wu lislaam ñaawlu la woo xam ne rafetut mm-hmm. te loolu la ñuy xam ñaare booy jàmbat ñu tegul si aw yoon rek moo ñu tax jàmbat waaye ñi nga xam ne ñu ngi si góorgóorlu moom dañ leen di gën a encouragé gën a ne foofu la parce que tam àddina loo xam ñëpp doyul kenn bu ko ñëpp bokkee itam mënut doy waaye nag bu rafetee rek dana dana dana am solo euh, jëmmi maanu googu nag suñu maxtaar ni nga indee woon misaal ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi jàll ko ci saxaaba yi ridwaanulaahi alayhim maanu googu lañ bëgg nga indi ñu si ay misaal ci Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu anhu mi nga xam ni moo nekkoon jàngalekat bu mag bi te wane si itam liggéey bu am solo nan nga ñu mën a joxe ay message sa moom ci ak maanaam. jërëjëf euh, sëriñ Mbacké delluwaat di la nuyu bu baax di la siyaar di la gërëm xam naa foofu sax mooy gën a yomb dugg fépp ndax arab yi dañ ne fa shahidul xaali addulun boo tegee sa bët dara gën wóor teg sa bët euh, kon daara jooju di daara Cheikh Saliou Mbacké bari woon lool nag. ay port yoo xam ne ay njiit dañ caane ndax njiital daara yi liggéey bi njiita nga ca kanam njiital daara yi jàng li luñ tuddee ay sëñ daara njiita nga ca kanam ba bu ñuy séddale añ baag reer ba sax dañ ko teg ci benn loxo boo xam ne mooy jiite loola kon ay direction yi direction la biir kër sëñ Saliou yu yaatoo yaatu waaye bi tudd séddale nga xam ne dañoo indi dara ca daara ja ñëpp war koo bokk wala ñu togg dara ca daara ja war koo séddale ñëpp war koo bokk daa bokk tam ñu war a wax dara ca daara ja ñëpp war koo dégg su boobaa lañ war a dégg am na nopp yu muy jaar ak làmmiñ yu muy jaar ba dugg ca noppi nit waaye lañ war a bokk dafa am loxo yu ko baaxoo saytu yoo xam ne ñoom ñoo yore magasin bi da koy dégg ki yore magasin moo yore séddale ba séddale ba nag bu ñu ne séddale añ reer lépp moo koy séddale waaye leneen du fa dikkaatoon ñu war koo séddale ci biir daara jën moo yore liste séddale bi kon foofu damaa wax ne kon biir kër ay direction ay direction la ay jëwrin la ay jëwrin i jëwrin la bi ci jiitu suñu masaana andi kafe ak suukar ak attaaya war koo teg ci loxo yi koy séddale toujours ki koy séddale mooy mujj am jëwriñ di koy li nga xam ne daara jam bokk moom waa néegam moom waa mu jaam foo ko fekk nag ñaare bu dee ñëpp dañoo war a am juróomi kilo moom daaraam dañ koy dolli dañ ko daan yow dees na la dolliwaat après ñaari kilo wala benn kilo wala mu séddale ba mu des mu sédd daaraam la ki des nag dañuy àgg ci di ko comp ay saakoy café ay cinquante kilo nga dem bay ngëpp di sotti ko ne ngëpp ko ne nga sànnil ko ndax lan lenn luñ ca ne du noona bu ko sëñ bi yégee dara du ko jar kon nit boo koy yar li gën a mat a yar nit mooy bëgg-bëggu bakkan foofu la ñuy yare bakkan bu gisee dara da koy da koy gis am ceeg cofeel loxo làmb ko mu am ceeg cofeel gimiñ mos ko mu am ceeg cofeel cofeel yooyu nag bala nga cee mën a mucc ci benn bu xase ba dugg ci gimiñ ñàkk nga cofeel moom lu la neexee bu la neexee lépp def nga la nga war bi nga koy séent laala googu ci nga war a téye sa bopp xam ni nga ci moom ak li ci keneen moom loolu moo waraloon kër sëñ Saliou bu oto bi masaana indi saako yi café yi ne saako yi nag na xam ne ay cinquante kilos saako cinquante kilos yii ci la ñuy andi ñett ba ñeent hmm. benn waay war a taxaw yore ab potum ndagg di ko di ko tibb ba ba ba ba lépp jeex hmm. ñu jël suukar sa léeg bi nekk ay boyat moom dana li ñuy wax boyat mooy paket dana yow liggéey waaye nag déedéet du ko doon li ëpp day natt di sottil kii natt sottil kee ba lépp mat suñu àggee ci war koo ŋoor ŋoor fenn fu ne mutti bu def fa ba lépp mat te loolu mooy bi donga bi def bi suñ saani wu def nag danaan ñëw defar lu nag woo xam ne ay huit cent mille bu doon léegi ndax bu ñu nee quatre cent mille ci yooyu jamono nag yi léegi huit cent mille lay mu defarlul ko boppam togg ko ci loxoom bu tedd ba lay ñëwee séddale ko waa daara jëpp ci loxol boppam jël ndawal gi ci loxol boppam teg ci ndab yëpp waaye gis nga bi teg ci ndab yi ci nga yéemu ci sëriñ bi dana xool ndab lee coppati fa dara delloowaat ko delloowaat ko gis nga daa ëpp daa ëpp bëggul kenn ëpp lee sa moroom cunkóor xardal nangu ko su ko defee bu noppee nag ñu door a jël ndab yëpp nga xam ne ci biir séddale gi mi ngi jàngale wala ak. mi ngi jàngale wala jàngale amul lenn ndab lu mu xam. ndab lu ne day jël def ca la ca war a dem bu noppee xoolaat ndab yi jëlaat ca bee dara def ci bii jël bee tuuti ceeb def ca bee ba nga xam ne boo ko doon peese la ki des yàllaa li nga waxoon léegi waaye <laughs> la ko war moom wàcc kon loolu mooy ak maanu nag dafa bokk ci li doomu aadama mën a liggéeyal moroomam doomu aadama dafa am loo xam ne mënoo ci liggéeyal kenn ndax sa yëfi bopp waaye li nga mën a liggéeyal sa moroom doomu aadama bokk na ca la ca gën a am solo mooy maandu ndax lan su maandu amul ay àq day dem toppante ay àq nag ñett dana ko waral toppante fii àq ba gaañante fa ñuy toppantee àq ya mu indi xeex wala xuloo waxante fa lu ñaaw beneen toppante àq ba tëjante malxias bi lay tax ba tey boobu baaxul ba ca des mooy toppante àq ba bis pénc moo tax yonent bi salaa salaam daan wax naan lii mooy li ma man ndax man def naa li ma mën lépp pour lépp tolloo kon nag yàlla man wàcc naa bu dee seddalee kenn ku ne jox naa ko sa àq ci soxlay boppam nag ok mooy yaa daawud inna jaalnaaka xalifatan ci la faxkum bayna naas bil xaq waaye gis nga li nga wax ne wala tattabi al hawa fa yudillaka an sabilillah mhm. mooy li nga xam ne mën naa dox mooy giir li nit ki bëggoon a mooy tax nit ki def noo xam ne daal waree si def mhm. te moom mooy mooy noonu bi gën a magit nag mhm. naa lu nit dugg rek yow moo ko si dugal waaye suñu maxtaar booy yëpp nag boo ko jëlee léegi eh, nga xam ne maandu lu jaadul la léeg-léeg nag seytaane domine nit ki ba du ko mën a def bu boobaa nag léegi fayub ñàkk maandu ko man jasaawu man akala bi diin koo xam xam naa dañ laa wóolu ngir diine wala nga laaj ngir diine wala wala loo xam daal diine ko tax a ñu jox la ko nga defee si na du noonu ko daa mel sëñ wax ne sharul waral lajina yaxuzuuna bi diin am waalan wa yaakuluna kooku boo ñu ko doon leeral moom fay gi lan moo si mën a juddoo am Seydina Ali ibn Abi dafa wax ñett yu am solo ki gën a yëkkati ci nit ñi ki gën a ragal yàlla nit ñi ki gën a set ab der ci nit kenn ci bokkut ak morom ki gën a yëkkati ci nit ñi mooy koo xam ne kenn du tudd ayibi kenn arqan naas daal waaw day day maanu ci nit ci lépp lu tudd ay bi kenn kooku mooy arqannaas amu ci amul ci keneen soxla ayib bi boppam doy na ki gën a ragal yàlla ci nit ñi mooy koo xam ne dafa rafet njortu ci ñëpp loo xam ne ah <laughs> kooku de ku baax la waaye nag ki ci gën a seet ab der mooy koo xam ne buy liggéeyal nit ñi day xam liggéeyalul boppam nag nit ñaa ko fa moo ci moom rek laa ci teewoon sax buy liggéeyal nit ñi day jàpp ne liggéeyalul boppam nit ñi lay liggéey ki toog woote ca Saalum daara joo xam ne boo fay dem amuñu courant yoonu suufa fay dem nga laaj seeni situation ba ñu wax la ko nga bindu yenu dara yët leen ba àgg foofu jihaad mënut a weesu loolu suñ sañ sañ sañ ko bàyyi woon fu muy jëlee lu mu xam ak ku xamal jihaad mënut a weesu lool moo tax kon ki gën ci nit ñi ci gën cee seet ab der mooy koo xam ne buy liggéeyal nit ñi day xam ne liggéeyalul boppam nit ñi lay liggéeyal su bëggee yàq ab deram nag day liggéey nit ñi ba noppi defe ne moom boppam a ko fa baax <laughs> moo tax naqawatul ard maanaam seetub der mooy booy liggéeyal nit ñi nga jox leen seen liggéey bi. mooy moom mooy am xannaas. waaw ah. ab am naqaawa kooku mooy ku mel noonu su boobaa nag ah, ah jàngalekat surtout nga ne diini li nga wax léegi ci charru wara diine boo ci jëlee dara lekk sax baaxul waaye dafa ëpp loolu diine boo ci bokkeek say morom dara lekk ko moo gën a garaaw sañ mbokkee man kese personnellement ma dem lekk ci diine sama sama bopp rek lekk teel xëy na laa coppate ci diine waaye lekkaale alali jàmbur yi ci diine <laughs> loolu moo gën a keesu juma wala keesu jàkk dara baaxu ci mbaa loo bokk ak mbooloo rek ah. lépp loo xam ne yi ak nit a ko bokk hmm. surtout nag loolu ñu tudd ci baatub diine ndax sarax moom ci baatub diine la bokk hmm. dimbalee ci baatub diine la bokk jàppale sañ daar yi ci baatub diine la bokk fexe ba dong yi di seet ci baatub lépp luñ tudd diine laa ne la lekk ko baaxul waaye lekk sa aqi moroom ci diine ko yées moo tax kon séddale diine compliqué moo tax abo pour da tam moo soon xar ya ma ci gën a duuf ak ma ci gën a rëy amu ci soxla da ko dese joxe ba aw bay des bay wa sax far matu tabaski yent bi ne ko nag jël ko ndax yow kat li nga def jar na ko ci diine nga doon liggéey ba ne la diine jàppale daganal la loo xam ne duut daganal ci keneen kon diine nit ki du ci lekk loo xam ne da nga caa woo nit ñi ba ñu wuyu la ci yow rek nga jël ko lekk ko mel noonu yow baaxul waaye nga ànd ci ak sa moroom ba ñu wuyu leen ca nga lekk ko yow kese baaxul man foofu dégg-dégg bu xaw a yaatu la te te te te am solo moo tax kon waaye foofu tey boo ñu doon dikkal ci mbugal mi comme li ci sëñ bi wax ci yenn téere yi wax ay charul waral la jën yàqu duuna jërëjëf sëñ Mbàkke parce que topp ko ndax lool tam lu diis la déedéet nit ki lim lekk lim lekk ci gémmiñam moom lay moom la biiram di tëye te li nekk ci biiram ci la vitamine ba nekk ci la lor ja nekk moo tax mu ne seeni biir ñoom ëllëg jiita ki jaan dañ cay daw te day fonki rëy lool la ko waral mooy liñ lekk nit ki day lekk loo xam ne dañ naan biir ba daa njànkaan nga xam ne boo ko tëggee mu mel ne perméable dam lekk baaxut mu lekk loo day daw biir ba rek ba àgg ci ndox lay génnee waaw nag noonu lekk gi di jeexitale ci biirub ki nga xam ne daal lekk lu baaxul xam ne xissi yàlla lu ñuy yëg ki lekk maana bi yëpp loola muy koo xam ne li mu lekk ci biiram baaxut doonte yëgu ko bu ëllëg ak si moo gën a tar mbugal suñu tubaab dana nag jiit yaag jaan yi dañuy nekk ci biir diw yëngatu te duñ ko rey te duñ ko rey fi ne loo dégg ñu ne biir ba ngay mett bañ ne waaj a faatu na ñëpp rafet njort ci ne biir ba sedd na ndax mi ngi ci yeneen waaye daneen nag bilaa mamaati bilaa mamaati waaw dañ koy mbugal te du dee kon loolu tax lekk ci diine baaxul laaj alal ci diine ba ñu jox la ko nga bokk koogu baa diine seetal bu dee jàkkaar tabaxal bu dem hôpital tabaxal leen lu mën a doon tabaxal ku ci jëriñu ñun la ñëwul jar gis nga nag lu mbugal ma metti rek na la yool ba toll ah, waaw ki gën ci nit ñi mooy koo xam day liggéeyal nit li mooy dañuy maa ngi koy dégg suñu ñu ngi koy nuyu waxtu di ko siyaar muy wax ni nit bu ngeen seqee dara ngeen bokk ko mhm. nga séddale ko mhm. teg ko si ak maandu mhm. soo ko yëgee ak soo ko yëgul respecté na la warmaan na la waaye nag nit bu ngeen bokkee dara nga feeñal ci ak ngoree soo ko yëgee ak boo ko yëgul respecté tu la fonkatu la ak ak melokaan xar kanam bu mu la mën a wan accam saa yu ko déggee ci mbir tey boroomam xel jógal dem accam accam du ko wax ñaari nit di dégg da def muy jàpp bu fa jógee ne la accam sa ginnaaw moo tax yor boo xam ne moom la yonent bi saa sallam yor inna laa yaamuru bil adli boo xasee ba tàmbalee séddale rek yaa ngi ci pind boo xam ne bu garaaw la tey ma dama gis saaba yi nan daaw osé parce que Seydina Omar euh, taxaw na si jumaa di di waaraat naan ittaqulaa ragal leen yàlla am ku jóg ni ko ragaluñu yàlla mu ne ko lu tax mu wax ko mbubb yéen séddale woon na mu ëppalee bañ gis mbubbam di laal suuf te ñoom seen mbubb seen mbubb matiwul noonu ñu xam nga da ngaa maandul si laaja doom ja ndekk moom mbubbam la boole ak bubbum doomam. Mhm. ñu mu doog ba mu leeree si bopp nañu ñu ne ko continuer la xutba bi léegi ragal na yàlla. xam nga li ko waral mooy. démocratie mhm. liberté ko am islam rek am loolu. ku toll ne Omar misaal bu doon léegi ñu ne muy président de la république mhm. mu taxaw di wax. ñu dagg ko benn ku taxawal nañ taxaw foofu ba mu leer te li ko Omar kum daa bari boobu nga wax noonu ba ca des ba mu doog premier discours am. ci ni muy yore réew mi dane bu ngeen ma gisee ci arab bi ne ko jaas daas jaas ne ko bul àggale de bés boo jàddee rek ñu dog sa ci Omar daal di jooy ne alhamdulilah rabbil alamin léegi dëgg fee kon jeyante raayante ginnaaw lañ tuddee al mujaamala mm-hmm. lu yàq moo ko yàq mm-hmm. mujaamal nit ki day mujaamal ya mujaamala ak conscience ah naa ko jël rek xëy na du problème mm-hmm. naa ko jox diw rek xëy na du problème kooku mujaamala ma an nafs la mu jaamala ma al axarin nag mooy naa ko jël jox ko diw ndax sama xarit la diw daa siiw diw dañ koo respecté su su ma séddalee bu ëllëgee si biir man dana ma jox pouvoir sax bu ñu bëggoon a daaneel moom bu waxee danañ ma jox may séddalee boobu séddalee jël kay itam te yëpp dëgg ko personnalité nag moom dëgg ak maanaam du morom loolu sax moo ëpp loolu personnalité parce que bi nga séddalee ba noppi yëkkati sa bopp ca kaw nit bu nekkee ci dëgg day yëkkati bopp boo gisee muy muy batt nuusal batt nuusal la ko olof tuddee baa il faut ma koy indi ma fara daal yooyu ñu koy jàngaale batt nuusal mooy nga xool ci suuf mhm. saa yu ko defee rek def na xay mhm. dafa am benn waay bu ñu doon séddalee loo muy séddalee lu ko neex bis nag mu dem ci waxeew ñam doon sédd ñëpp dajee ku mu xool rek sëgg ku mu sëgg ñu ne ko looy def nii mu ne ñii ñëpp la dama am ak ñoom problème mu kersa <laughs> ku mu sa teg dil rek sa loxo lay sëgg ñu ne ko ay bisimilah daa mel fii yaatu mu ne mënuma fee yaatu kenn ku nekk ñoom def naa loo xam ne bu suñ bëri ñeenti rek ma am problème. daqat alayhim al ard bima raxubat kon moom parce que moom moo jubati. moo jubati moo tax bu bëggee am indépendance la wax su bëggee yaatu na wattandiku yii alali jullit dereeti jullit bu ko fa baax jëlul alali kenn yàqul deru kenn rajut kenn gaañul kenn maaluhu wa irduhu nee na yoon wu ko neex jaar hmm. loolu rek la doon teg xadis mooy yoon wu ko neex jaar waaw parce que kooku libre na al mu'min fii fasxin min diini hmm. maalam yusib hmm. damam damam riin wala maalihi aw irdihi kon yooyu mooy yàqal nit ba dëkk bépp xat ci yow wa daaxal alayhim la maa raxabat ah, jooju loolu rek la waaw loolu rek la waaw ah, jubadi rek la waaw ah, jubadi la jubadi la yàlla nañ si yàlla musal kon mbokk yi loolu mooy li ñu leen indil ci suñu émission Euh, tey suñu numéro 18 muy yaru ak euh, yare nekkoon ñaari numéro yoo xam dañ ko sësale pour que loolu li mu répété wu ci Sénégal dafa bari yoo xam day bari ay aide yoo xam dafay tasaaroo di dem si ñooñ daara ñu ngi koy jox itam di def seen kémt lay kattan di ko teg si ak maandu boole ko ragal yàlla waaye léeg-léeg itam nga gis si ñoo xam ne moom euh, niñ ci doxee moom taarikàlla doy na waar lool te itam maandoo di ko na lool su ko defee waxtaan nag li si am solo rek mooy képp koo dégg na ko xam nga ni ngay doxee nga jël ci wàll te xam ne itam labyrinthe euh, ak bëgg lépp ñoŋ rek moom moo ñu tax a jóg nekkuñu sax ñoo xam ne dañuy jàngale wala ñuy joxe ay leçon waaye nag euh, ak labyrinthe la ak fàttalante rek koo xam ne fi nga nekkoon noonu la fay laay xam ne nga wéyal ko koo xamante si ni itam gis nga ni ni nga nekkoon du noonu nga xam noonu nga defarwaat rek ndax si li sëñ Saliou waxoon benn njiitu réew rek ni ko du la wax maa la ëpp am xel mm-hmm. waaye nag mën naa laa wax loo xam sama xel àggu si xam nga loolu day mel ne nag maa la ëppam xel waaye woddu na ko mm-hmm. Mm-hmm. daan ne ko kilifa du yor ji koy mbëtt mm-hmm. ndax mbëtt du dox heure du jaar si aw yoon te xam mbëtt xam nga dox heure jaar si aw yoon te itam bu jëlee dara day dugg si am pax bu dugalee bopp bi nag moom dootul gis nit ñi moom day defe ne kenn gisu ko fekk moom moo gisul nit ñi waaye nit ñaa ngi koy gis kon nit ñi li ñuy bari bari bari lu waaye jëf rek boo sàgganu nit ñi am na luñ ci xam te am na ñu lay xoolee nga sàmmanteeg loolu nag rafetal sab der def sa kéemtalaay kat dana taxate lépp lu tege si sa rek fay laay xam nga góorgóorlu si ba defee ko ni nga ko war a defee su ko defee moom bu nit ñi gërëmee fay laay alhamdu buñ ñu gërëmul itam fay laay alhamdu yow am nga fayu suñu borom tabaaraka taala te nit ñëw kenn mun leen a dàq ndax niñ ko waxee woon rek am na ñoo xam ne bu ñu jotee tey dañuy kontaan lu rafet la ñuy wax ba léegi boo leen xañee duñu wax jàmm fa in utu minha radu wa in lam yutu minha idahum yasqatun ñooñu moom taxuñu ñuy wax waaye nag ñuy wax mooy ñi nga xam dañuy xeex rek pour ay principe lu ñëw rek kenn ku ne si àq ñu jox la ko fa illaahi alhamdu kon mbokk yi eh, foofu la ñu wàccee suñu kàddu di ñaan borom bi tabaaraka wa taala sàmm ñu te itam sàmm ñooñ daara téere bi nga xam ne itam suñu borom moo ko wattu dañ bokk si ñu koy aar di ko ñëwal di ko yaatal yàlla jàppandalal ñu ba ñu am si lu kawe suñu yortu araf wuñ ci xam ne rek yàlla def ko aw yiw te sàmm ñu zahiran wa batinan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu